man je pense que aujourd'hui il est grand temps mu am benn conseil des sages au niveau de l'Assemblée nationale mais malheureusement avec l'âge man gëwuma alternance générationnelle dama gëm un jeune il doit avoir des conditions pour être dans une dans une direction wala ay poste de responsabilité parce que soo xoolee Jean-Jacques Rousseau mu ne dans Émile Oudou d'éducation mu ne un jeune dañ ko war a éduquer mais si éducation yëpp lu gën a important c'est la formation et je pense que ñun homme politique yi suñu parti yi amuñu formation kii day ñëw ànd ak diw parce que kii moo ko neex loolu la foofu Fara yaa waxoon numéro 2 du PDS à l'époque mu ne au Sénégal les gens ne sont pas avec des partis politiques par rapport à l'idéologie parce que kii moom a neex ma ànd ak moom tey soo nekkee parti war na mun xam la mooy idéologie d'un parti politique war na mun xam la mooy les mécanismes mais malheureusement ku nekk day xool lu ko indi mu ñëw taxaw si parti politique soo demee au lieu d'être un député du peuple parce que député lan la c' est pas un député du président Macky Sall pas un député de l'opposition soo demee dans dans d'autres pays européens ils ont des circonscriptions dans leur localité tey yow soo amee problème bëgg a bind une lettre à un ministre da nga ñëw sama bureau na bind ma bind lettre bi adressé à un ministre de la République pour laaj ko ay questions mais loolu c' est une question de culture démocratique c' est une question de vécu parce que Sénégal tey tamit on a eu notre indépendance en 1960 donc comparaison n'est pas raison pour comparer à d'autres pays il y a dans ce pays il y a eu des avancées man je salue l'initiative de de ce que le gouvernement est en train de faire parce que tey gouvernement bi dafa war a par rapport au par rapport à la population sénégalaise tey su la joxee dara war na mun toog ne ba mu fa nekk bi léegi li mu fi am et hier malgré tout ce mais on a parlé de xëyu ndaw yi. Mhm. y des avancées on a parlé des même des recenseurs. Mhm. man mi dëkk ci koñ bi plateau ailleurs damay dugg di xool mais boutiquiers yi ñu joxe prix. tey imaginez yaa imaginez ñu jël cinq cent personnes cinq cent recenseurs ñoo ñoo amoon cinquante non cinquante agents assermentés pour cinq cent boutiques de commerce loolu ça pose problème mm -hmm. avec avec tout ça on a fait ce qu'on appelle on a eu plus de mille agents pour contrôler plus de cinq cent commerces mm -hmm. donc cela veut dire quoi quelque part il y a des avancées par rapport à xëy ndaw mais dans l'application des choses il faut que ñun tamit ñu am benn opération de veille pour mun xam liggéey bi ñuy def est-ce que réellement mu ngi dugg si biir askan bi parce que tey quand le président il dit des fois par rapport à certains lycées jusqu'à présent on a une exécution de cette tâche mais ça veut dire que lui il peut avoir une volonté mais derrière il y des choses yoo xam ne du am moo tax tey man une fois j'avais proposé à quelqu'un qui était de quelqu'un qui était de l'opposition ma ne que mais yow gis na yow bëggoo affaire APE tu vois quand des APE ma ne ko yow comme par exemple on je viens avec mon mouvement ma défendre le oui défendre le non loolu day wane après après wax les à la fin on peut même faire benn mémorandum le soumettre au président de la République pour dire que à tel endroit telle chose moo amoon lii ak lii mais malheureusement fii la mooy problème tey opposition ak ñun on se regarde comme des chiens de faïence c'est-à-dire que on a l'impression que c'est l'intelligence même qui s'est rabaissée pour être la servante de la médiocrité aujourd'hui on est parce que y a des choses yoo xam ne je me je me retrouve plus en tant qu'homme politique. Mm-hmm. parce que man lu ma gisee politique c'est comme l'arbre à palabre à l'époque y avait nos grands-parents soo demee mm-hmm. kër day am baay am mm-hmm. mag day am rak la preuve dans cette dans cette tribune y a un doyen Mame Abdou Dabakh dafa ne soo ñëwee ci jotaay su amee mag c'est la sagesse su amee jeune c'est la fougue et l'énergie ñun on a besoin de toute cette assemblée pour que les choses puissent aller de l'avant tey politique bu ma fu ñu dem nii gëwuma mu benn apaisement